merci encore une fois de nous rester fidèles mbette la saa su nekk ñu daal di jàkkaarloo ak yéen 12 minutes chrono tey ci talaata bi yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février atum tey ñu fas yéene wax ci li nga xam ne mooy jëm ci crise bi mais aussi réouverture bi nga xamante ne euh, daal dinañ koy jël ndogal ni ki euh, démb ci altine gi ñëwaat ci est-ce que la réouverture a été effective ou pas euh, loolu yëpp daañu ci waxtaan ni ki tey jii c'est est-il la fin du crise bien sûr universitaire au Sénégal ou bien du temps plus savoir de l'université Cheikh Anta Diop Dakar loolu yëpp daañu ci waxtaan encore une fois tey dalal Abdou Maye coordonnateur à la faculté des lettres sciences et humaines euh, mu nekk mbette ñu dalal la tey suñu plateau Abdou Maye. merci beaucoup euh, le plaisir est partagé et merci beaucoup pour allah la situation politique d'abord au Sénégal qui interpelle tout un chacun tey jii boo ko xoolee euh, jamono jii waroon na fekk ñu def élection ba pare mais au vu la situation élection bi dañu ko dàq ba tey xamaguñu kan la ñuy woote. est-ce que ça vous interpelle est-ce que yaa ngi toog parfois di xalaat la scène politique jamono ji kañ la ñuy def élection est-ce que vous vous posez ce genre de question là. bon je pense que bien sûr képp kuy jeune surtout euh, nekk jeune bu conscient jeune bu nga xam ne yaa ngi soucié wu l'avenir de ce pays question boobu quand même il faut mu ñor la. chaque mm. jour que Dieu ñu ngi si dans les débats publics voilà donc fu ñu toog ñu ngi ci wax ñu ngi ci aussi joxe suñu xalaat je pense que tey élection ñëpp ko bëgg. Euh, y a un vieux qui m'a dit hier que même animaux Sénégal sax bëgg nañu dépasser euh, niveau bu ñu nekk nii actuellement. Hmm. parce que boo xoolee tey depuis deux mars deux mille vingt mu ngi ci ay problème élection présidentielle troisième mandat nangam donc quand même il est temps Sénégal mun a dépasser cette passe dem ci beneen passe. et vous pensez que date élection yi war nañu ko def bien avant avril. mais ou avril. bon ñu def ko la ñu ñàkk koo def loolu mooy dëgg mooy ñu def ko avant le avril mais ak lu ñu gis nii démb gëm nañ ne mënuñ ko defati avant le avril. parce hmm. que ku nga xam ne moo war a signé décret pour joxe ko gis nañ ne pareegu pour def élection avant le 2 avril et il nous a déjà quand même euh, son avis. quand il hmm. dit que euh, bu ma naree dem le deux je vais amul consensus. quand même, je vais, je vais consulter le conseil constitutionnel, cela veut dire qu'il a déjà pris ses ambitions. Mmh. Il a déjà pris quand même euh, voilà, sa décision, on n'y peut rien. Il n'y aura pas d'élection d'ici le 2 avril, mais nous avons l'union moi, Sénégal, moi, élection, Sénégal, moi, mag élection. Hmm. Quel que soit Alpha, nous signons un décret des élections, nous devons diam, voilà, et on passe à Abdou un jeune conscient, comme vous l'avez dit, sans Ngako, hmm. Sakadou, est que cette conscience, t'a dit, d'afflay pousser à ce que vous bon non pour dire vrai d'accord ma benn yoon tey ñu reprendre à zéro ce processus électoral parce que dama wax naa ko hier rek si benn place man leen candidat euh, xaalis bu ñu wutee parrainage moyens yu ñu ba def ko foo foruñ ko dañ koo liggéey deuxièmement conséquence conseil bi nga xam ne que tey moo ñu yilif ñëpp waruñ ko fagaagaal waruñ ko neewal doole quel que soit le statut du président de la république aujourd'hui c'est de respecter les institutions montrer un bon exemple nangu ndogal yàlla xam ne yàllaay fal bàyyi conseil conseil ñu continuer processus électoral bi gagne. en quoi faisant exactement bu ñu continuer processus électoral bon respecté ko comme d'habitude. jàpp élection campagne voilà. mooy ñu bàyyi ba léegi les candidats qui sont retenus par ah, le conseil constitutionnel. et les candidats spoliés coow bi ñuy jokkite. mais les candidats spoliés n'ont pas rempli leurs droits et leurs devoirs je pense. c'est ça vous pensez qu'ils n'ont pas rempli leurs droits ou bien il y a eu des problèmes au non moi je crois pas. pour dire vrai je crois pas à des problèmes maintenant à ces de problème là je dis que fu 20 candidats jàll ku fa jàll rek peut am na lu tax jàlloo d' loolu benn mbir la mais beneen mbir bi ñuy jeexale mooy ba tey ci wàllu actualité la on parle de cela encore une fois hier le président wax na ci li nga xam mooy conseil euh, maanaam dialogue bi muy la loi d' pour pardonner les faits et gestes en tout cas qui se sont de en est ce est-ce que yaa ngi xalaat ñu dem ba pardonner les gens qui ont qui vous ont fait perdre autant de mois ci li nga moom mooy seen cursus scolaire. bon je pense que tey peut-être loi amnistie ça dépend si loi ba aussi parce que tey c'est vrai il a parlé quand même benn loi amnistie boo xam ne bugg nee na dina ko passer dès ce mercredi à l'Assemblée nationale. en fait au conseil des ministres. di mos laa bëgg a en fait lu ma la bëgg expliquer mooy. Euh, amnistie na solo mais ban genre amnistie je pense que tey nekkul aussi n'importe qui la ñuy amnistier. Euh, bu fekkee dina am loi d'amnistie man d'accord naa mu am loi d'amnistie mais qu'il y ait des limites parce que nag aussi te mënuñu d'accord le pouvoir sortant ñëw fii avec seen ministre seen force rey ay jeunes massacrer quand même l'espoir jël ndaw ñoo xam ne mosuñu xam prison dugal leen prison. le pouvoir moo rey ay jeunes sacrifier aujourd'hui tey bien sûr sacrifier aujourd'hui l'espoir pendant huit mois investir rajo ba tëj nga ñëw boo ne wala damay mettre en place benn loi amnistie mu jàll comme si rien n'était te déjà aussi day permettre président bu fi mënta ñëwaat def encore des erreurs pareilles et lui aussi il va finir encore pour mettre des lois d'amnistie. d'accord ci politique Abdou vous êtes avec qui. bon euh, en politique pour l'instant amaguma position. Euh, j'avais nous avions mis en place ce qu'on appelle une nouvelle alliance. D'ailleurs, je le coordinateur du mouvement des jeunes d'espoir de l'avenir du Sénégal. Je collabore avec une nouvelle alliance. bon je peux parler avec la coalition Diomaye président. bu hmm. nga xam ne toog nañ waxtaan nañ. donc vous êtes avec Sonko. bon c' était pas encore confirmé c' est pas encore acté parce que bu ni ma waxee dans la conférence de la coalition Diomaye. parce que mais mais li li jamono neex na. bon que nekkul Diomaye kese lañ rencontré on a rencontré plus de six candidats. d' accord yoo y compris le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. bon non pas encore rencontre le candidat donc vous n' êtes d' accord loolu leer na ci jamono jii ci nga xam moom moo jëm ci élection présidentielle on en vient à la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar on a titré fin d'une longue crise au temple du savoir est-ce que vous pensez que là on a sifflé la fin de la crise au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar bon oui nous l'espérons nous l'espérons vu que quand même voilà les responsables euh, ont pu comprendre que vraiment c'était tort de fermer cette université pendant Et je pense que c'est des leçons qu'il faut noter, c'est des, des, des, choses qu'il ne faut jamais accepter euh, dans ce pays, et surtout dans l'avenir. donc tey gëm naa ne bon fin crise la mais ban genre fin crise la. Hmm. parce que tey bu ñu nee tey dañuy ubbi université dañuy tëj campus social bi ubbi campus pédagogique bi day gën a metti tey boo xoolee tey les quatre vingt quinze pour cent des étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ils ne sont pas des gens di Sénégal donc tey boo leen buggee indi Dakar ñu war a jàng def des cours pédagogiques dem université ñib si amuñu fu ñu lekkee amuñu fu naane amuñu fu ñu fanaan ça devient compliqué crise bi donc ba léegi jeexagul lu ñu ñaan mooy bu ñu buggee wax fin de crise na nekk benn fin de crise totale bàyyi ndaw ñi ñu dellu dans le campus social ñu nga xam ne amuñu fu ñu logé ñoo mën a dekk dans des très bonnes conditions suivre le leurs exemples parce que naa la wax benn ko. oui crise bi tey jàpp naa ne au minimum il va sacrifier plus de cinquante cinq jeunes yoo xam ne que tey sont des innocents des faits qui sont passés à l'université ou cinquante cinq plus de pour cent des étudiants inscrits à l'université de Dakar seront sacrifiés alors que ce sont tous des innocents des faits qui sont passés sacrifiés c'est-à-dire sacrifiés ay jeunes yi nga xam ne mu ñëw def examen parce que amuñu fu ñu logé ay jeunes yu nga xam ne ils vont essuyer les examens parce que fu ñu jóge pour ñëw université c'était pas confortable ay jeunes yoo xam ne dañuy dañuy essuyer examen yi parce que ils n'ont pas pris le temps de bien dire ils n'ont pas pris le temps de bien réviser parce que mm. les moyens amuñ ñi amuñoon sax ay moyens pour jóge Kër Massar wala jóge dans les autres euh, quand même euh, pour ñëw def examen mais est-ce comme nu ko waxee si la faculté des sciences humaines des mouvements au sein du campus social collaboré avec presque avec une cinquantaine de coordinateurs de liste au sein d'une plateforme de mouvement des jeunes d'espace de l'avenir du Sénégal. Mmh, donc pour wax la que ne à chaque instant dañuy am les informations de taille venant de l'université. D'accord loolu benn mbir la beneen mbir bi mooy euh, yaa ngi koy wax léegi junj nga ko sa waxtaan campus pédagogique moo ibbi il faut que ñu préciser cela. Mmh. c'est-à-dire la réouverture du campus pédagogique. pédagogique très bien mais proposé woon nañu à ce que ñu ubbi le campus pédagogique mais pas le campus social ngeen bañoon. Mhm. pourquoi vous l'avez accepté aujourd'hui bon je pense que tey lu tax euh, ñu war ko mën accepter mooy le fait que ñu proposer étudiants yi aussi forcing parce que tey boo nekk représentant d'étudiants ton premier objectif c'est quoi c'est l'intérêt de l'étudiant li nga xam ne que tey nga ne moo gën a oyof si étudiant bi parce que bu ñoom bu ñu ko njëkkee proposé gis ne que la majeure partie des coordinateurs et des délégués et du des examens ñii grand théâtre ñii école normale et consort te boo xoolee te ñu ubbi campus pédagogique bi. Hmm. je pense que ça devient encore beaucoup plus quand même euh, accessible aux jeunes. que dem dans les dans, dans les universités qui ne maîtrisent même pas ou bien qui ne connaissent même pas donc déjà ça pose problème donc ñu gis ne que ubbi leen campus pédagogique bu ñëwee comme tey il y a déjà des délégués qui sont sur place qui sont en de donner des cours de renforcement au département d'anglais L1 xam nga tey ça quand même ça aide de voir le chemin de mieux quand même aussi voilà euh, revoir les cours ñu jàpp ne tey loolu moo gën dafay Euh, les cours dans les heures universités wala dans les heures. mais est-ce que waxtaan ngeen ak les autorités compétentes en tant que telles. est-ce que tey jii toog ngeen waxtaan ak par exemple je prends l'exemple du directeur général. Euh, du du euh, du centre universitaire des des des centres des œuvres universitaires de Dakar muy. Maguette Sène mhm. est-ce que toog ngeen waxtaan ak moom par rapport ak li nga xam moom la waxoon au début je pense que recevoir nañ ko ci plateau bi je pense bien fi nga toog nii foofu la toogoon. Mhm. waxoon na ci wàllum sécurité est-ce que cette sécurité jël nañ ko. mettre ko en compte est-ce que jamono ji euh, jàpp ngeen ne toutes les conditions sont réunies pour ñu ibbi le campus social. bon man personnellement tooguma ak moom mais gën naa ne collectif bi toog na ak moom te à travers. Ah, quand même ah d'accord ci collectif bi. non man je plus membre du collectif. man je coordinateur à la FLS. mais lu ma gëm mooy je discute avec l'équipe de direction dem rek waxtaan naa ci ku nga xam ne il fait partie de son chef de on a expliqué na ma yan mesures yoo xam ne que tey gëm nañ ne bu ñu ko jëlee les enrôlements yoo xam ne ñu ko commencé indi à l'université lu ci mel a ils ont ils ont amoon ce qu'on appelle des cartes pour euh, comment encore des cartes des centres de université Dakar bu nga xam ne que tey boo ñëwee da ngay def enrôlement enrôlement bi mooy képp ku fiy dugg ñu xam ne étudiant la on étudiant régulièrement inscrit mais loolu moo fa nekkoon bon nu xawoon na am différence tuuti bu njëkk dañ doon ñëw wane sa carte ñu photo ko xool mais maintenant da am ce qu'on la carte personnelle boo ne da ngay def enrôlement ñu xam ne kii c'est un étudiant régulièrement inscrit boo dugg ñu xam hmm. ne telle jeex que la question sécurité universitaire je reste toujours ferme à mes convictions loolu mënu ko jeexal lu koy mën a jeexal mooy dëgg lu koy mun a jeexal mooy jub lu koy mën a deexal mooy au sein du campus social ñu bàyyi kumba am na ndey kumba amul baay ñu mettre tout le monde au même kumba am ndey ndey. kumba amul baay wax naa ko dans tous les plateaux. mais yéen collectif bi déjà yéen ci biir. non c'est pas une question de mais yéen jubóo leen déjà yéen ci c'est université c'est l'univers képp fa ñëw il y des gens nga xam ñu ngi fa seen yoon nekkul ci amical cest ko dire que l'autorité personnel administratif bi direction bi ñëpp war a xool yi nga xam ne mooy intérêt général Euh, de l'université ñu mettre ko en place mooy lan. Hmm. yépp lu nga xam ne lu yee tension la. Hmm. ñu écarté ko wax naa la fekk kumba am na c'est-à-dire que université dafa ay camp politique comme ni nga ko waxee am na ay camp yoo xam ne lu leen neex def dara lu leen ci fekk am ay camp yoo xam ne tey ku mel ni Abdoulaye Faye boo waxatee ni sax suba ñu la kaay wuji convocation mooy ñu far ak voilà c'est ça mooy ñu wax naa leen lu fi indi tension yi tant que juucu ñu fa baaram wax ko mu dëgg ñu mu dëgg définitivement day amaat dans les années à venir mooy université kaas naa ko dans tous les plateaux safara bi benn jeunesse boo xam ne que tey bu ñu doon naaj la di ko troxal mu révolté wu fépp nag boo gis yoon bi jàpp ne donc voilà il aussi elle doit du moins aussi exagérer. Hmm. comprendre nga. Hmm. donc loolu pour mu jeex dafa yomb yépp lu nga xam ne luy yee fitna la les mouvements partis politiques ne ci biir c'est l'univers on fait man j'accepte ñu def politique dans l'espace universitaire mais politique d'idée de programme. de conviction de principe de dialogue ku nekk am nga droit féete fu nga war a féetewoo mais nga ànd ci ak ngëm-ngëm ak yi nga xam ne mooy xam-xam. Hmm. foofu la ñu xaar étudiants yi. autorités yi aussi ñu jël ñëpp mettre leen au même niveau au même pied mu bañ am tey quand benn appartenance wala boo xesee far si camp maire national vous êtes quand même am nga xam ne lu la neex def boo faree si de boo faree si camp de boo ne ñëpp ça amoon des problèmes loolu tant que dinañ ko laal espace universitaire ces mesures-là ne valent à rien. d' a jeex exactement. d' accord jàpp nga ne bu ñëwee loolu dina jeex est jàpp nga ne jamono ji pare nañu vous les jeunes vous. Euh, les étudiants ñi nga xam ne nekk dans l' espace universitaire pare ngeen pour mettre de côté li nga xam moom moo jëm ci politique puisque bon nee nañu politique bi après moom moo leen di may xaalis. bon mënuma ne par nañ pour mettre euh, à côté la politique je pense que tey voilà ku wax étudiant doo def politique mooy tooñ nga ko. ça c'est vrai am nañ droit def politique et dinañ ko def aussi. bien sûr mais comment le faire. mais politique d'idée. très bien tey. am nañ droit def politique dans l' espace mais politique bu noobu lor doon. comme ni ñu toogee ni di waxtaan. Hmm. xëccantoo xalaat nga jéem a convaincre par idée ma jëm laa convaincre par idée. cet modèle de type d' étudiant lañ soxla au Sénégal actuellement mais nekkul étudiant boo xam ne gëm na ne tey diw bu fi waree jaar nga toog fee gaar monte ay jeunes ñu yor ay jaas ñi yor ay ay xeer. donc loolu am na ci biir université mais bien sûr gis nañ ko fi ñëpp gis nañ les informations de taille dans les réseaux sociaux. Hmm. voilà ay autorités yuy dugg université à deux heures du matin ay jaas yu génn université à telle heure. ne que bu commencé dugg si l' esprit des jeunes ça peut quand déborder. Hmm. te mun na indi encore yeneen tension donc quand je pense que loolu lu jar a bàyyi xel. d' accord Abdou Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax une fois ñu dalal ko les arguments de la force donc nekk loolu loo xamante lu am solo 12 minutes chrono ëllëg ak jàmm